mbooloo mu takk lool ay kilifa bàyyeekoo fu ne bokk ci mouvance présidentielle ak ci kujje gi ñëwoon ngir fekkee levée du corps bu Oumar Sow nekkoon fi directeur urbanisme Abdoulaye dawda jàlloo di indi seede yi njiitum réew mi Macky Sall. Omar a été un collaborateur compétent Omar a été un collaborateur généreux compétent loyal généreux loolu le président wax nañu ko fi yëgal ñu yëgali ko mbokkam il a eu un comportement d'un haut fonctionnaire. ay xaritam ak i jegeñaaleem ñoom ñëpp ab tiis moo leen dal jamono ji dafa dem sax ba feeñ ci seen xar kanam. je suis tellement ému que je peux pas qualifier. Omar Sow nekk nit koo xamante ni kii il est humble il est loyal il est solidaire. Omar Sow kenn gënu ko ku jullite. ku dimbale doomu aadama yi. Sénégal ñàkk na secrétaire général bu ministère urbanisme di El Hadj Abdoulaye Guèye di dikkaat ci waxtaan bu mujj bu mu amaloon ak Omar Sow. Omar ñi ngi mujj waxtaan ajjuma li ñu waxtaanee toujours c'était dossier. ndax cër bi mu am ak li mu yoroon ci ministère bi man sama bopp SG dama koy defalaat compte rendu ci laa koy woo ni ko Omar monsieur le ministre nee na talaata nga ñëw ci man sama salle de réunion ñu def réunion ci waxtaan ji loolu ci loolu. problème bi gën a rëy fi ñu toll ci ministère bi ci problème boobu la mooy li ñuy wax pôle urbain de Daga Kholba. ay xaritam ay jegeñaaleem ak ñim doon liggéeyal ñoom ñëpp nag def nañu seen i témoignage yu mujj ci góor gi nga xamante ne bii dañ ko doon woowee nituk solution ndax lépp lu mësaan dugg daanaka dina ci indi ab pexe tey nag